asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Walf TV la voix des sans voix ñu amaat mbégte dellu si waat feggoog yéen. ci seen émission le grand soir gannaaw bañ leen nuyoo kenn ku ci nekk ci turam ak santam mbégte lay doon saa su nekk di ànd ak yéen di nga xamante ni moo di émission le grand soir tey jii nag ajuma comme ni ñuy faralee di ko def rek day doon plateau boo xamante boo xamante ni actualité la ak it euh, rek ataaya saa njóogu mbang ci wàllum actualité bi nag dinañ ci ànd ak euh, soxna Awa Diop euh, Ndiaye Diagne nga xamante ni dinañu toppal li nga xamante ni moom mooy xew-xew bi ci réew mi bokk na ci rapportu Union européenne bu aju ci wàllu parrainage yi naka noonu également rassemblement bi nga xamante ni tey nag boole woon na mbooloo yi nga xamante ni dañoo génn ci kujje politique bi société civile bi doon rek ñaxtu li nga xamante ni moo aju ci wàllu pétrole bi ñu fas yéene nag seq yooyu la waxtaan ak ñi nga xamante ni bokk na ci Abdourahmane Sow bu kos M23 naka noonu Babacar Mbaye Garaf ak Karim xurum xaq mi ngoog ak oustaz Assane ni ñu koy defee vendredi bu nekk damay def lu dul nuyu njëkk Karim comme ñoo feggoo fii ci euh, plateau bi jaata may jàll fale Karim nuyu naa la. waaw euh, salaamaaleykum maa ngi lay ziar ma sœur euh, di la nuyu rafetlu teewlu bi teew bi di nuyu aussi sama mbokk ma bokkal plateau bi yëpp sama sista yi et di ñaan yàlla rek bañ fi wax lu ñuy xebee. merci ñu jàll ci ñoom Awa Awa nuyu naa la yow tamit. Rahma maa ngi lay fay eh, di nuyu suñu invité yi Karim ni ñu ko waxee Abdourahmane ak eh, ki nga xamante ne moo di Babacar Mbaye Garab ak Oussa Assane Diouf comme invité laa koy nuyoo <laughs> di euh, comme participant <laughs> euh, si kanam tuuti comme ni nga ko waxee à l'entame dinañ ñëw ci actualité ci euh, li nga xamante ne moo di manifestation yi mm-hmm. xamante ne aljuma bu jot namm nañ ko amal ngir kaas li nga xamante ne moo aju ci wàllu pétrole bi mm-hmm. ak rapport Union européenne bi nga xamante ne jëm na ci wàllu parrainage bi ci kanam ak sama gan Abdourahmane dinañ ko faram fàcce dañuy ci moom sax justement ko moom it Abdourahmane ñu nuyu la dalal la itam bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamun ala al ashrafil sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di fay di leen nuyu di leen gërëm di leen ñaañoon studio bi ñu ngi fii doog a ñëw dañu wax rek macha allah la voix des sans voix yàlla ko yàlla barkeel ba lépp loo xam ne da koy ci gàddu bépp liggéey bu muy def mu nekk njëriñu askan wi di ziar suñu papa Sidi Lamine di ko ñaanal di ziar invité yi ñoom oustaz ñoom Sa Ndiogou Karim yàlla na suñu borom dugal ñu ci waxtaan bi ci jàmm ci bisimillahi rahmaani rahim kàddu bu ñu fi yëkkati rek yàlla na nekk njëriñu askanu Sénégal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jaajëfal ko moom Karim jàllaat ci beneen gan gi laata may ñëw ci oustaz Assane dëgg la ci kër gi la waaye tamit tey invité la li koy sànjoogu di xëccoo toujours ak nit ñi ma nuyu Babacar Mbaye Garaaf nuyu nañ la Babacar te mu tëdd ci àjjana nekk fa incha allah yàlla may leen xool ak xel ak mën-mënu eggale œuvre donc di nuyu ñi bokkal plateau bi sunu jeune frère Karim mais également sunu jeune frère Abdourahmane ñu xam ko ñu nekk yàgg mën a ay combat au nom de la patrie et au de toute la nation. mi ngoog Oustaz Assane nuyu nañ la may wax euh, <laughs> dañ koy nuyoo ci arab sax. lay euh, jaare ci yow nuyu ñi ñuy dégloo ci biir réew mi ak ci bitim réew. Mhm. Euh, am yaakaar ni rek incha allah plateau bi dina fi indi ay réponses ci question yoo xam ne askan waa ngi koy laaj muy loo xam ne rek dafay jëlee ci réew mi ci benn point yóbbu ko ci beneen point loolu moo ñu tax a jóg. d'accord Sandiogou yow tamit ñu nuyu la ziar euh, ngi am mbégte bu baax Rama di kontaan ci retrouver ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu euh, nekk ci biir réew ak bitim réew ngir rek ñu daal dee fas awa yow lan nga wax ne moom laa d'abord nga ne ma participer donc euh, man rubricaire nga ma def. ah léegi awa man nga naan rubricaire. jërëjëf merci. Euh, léegi comme que Gomis nekk fu ma nga Coupe d'Afrique yow léegi yow yaa fas yéene jël place am pour di ma tapaas di ma défi. mais rubricaire non mais mais mais da nga ma défier quand même. non du défier yow nag yow ngaraaf yow dama laa invité nga nuyu ñëpp nuyu woo ma moom dafa démarré moom rek zappé ma moom. man nga xaw ma lu tax nga zappé man man ma jaaxal. dama nuyu waa kër gi yëpp yaa ngi ci biir kër gi yaa ko yëpp laa <laughs> voilà awa man nga naan rubrique ok amul problème amul benn problème. d' accord mais ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu monsieur saw ñu ngi lay nuyu bu baax di am ci yow mbégte kontaante di nuyu aussi tamit euh, Karim Xurum Xaq ak euh, Babacar mbay Ngaraaf euh, di wax ni ñun ak oustaz tey dinañ ñëw aussi tamit ci thème bu am solo. parce que rama xam naa demoo màkka waajaloo ko waaye dinañ ñëw ci état bu ak dinañ ci waxtaan ak ki nga xam ne mooy oustaz ci wàllu diine gi ak tamit li nga xamante ni bii moom la ñu war a waxtaan ak euh, sunu yeneen gars yi incha allah lépp tënku ci li nga xam ni moom la ñuy tuddee l' actualité. waaw actualité bi fii lay xewee ci wàll Walfadjri la voix des sans voix léegi léegi ñu daal di ñëw rek dugg ci waxtaan bi. voilà ni ngeen leen ko léegi dañuy démarrer rek ak euh, premier point bi nga xamante ni actualité bi la mu ñeel rek euh, wàllum rapport Union européenne. Euh, ci parrainage bi awa kàddu gàngo ci wàllu rapport boobu sax yaakaar naa ne mun nañ ko mujjee ñu njëkkee li nga xamante ne mooy li amoon euh, tey rassemblement boobu euh, Abdourahmane Bële dañ leen ko bañaloon gis nañu fi mu mujjee tey ñu nangul leen ko vous avez mobilisé les images parlent d'elles-mêmes mais tey est-ce que yaakaar ngay ne mobilisation yooyu sava va aboutir à quelque chose est-ce que mun na jur dara dara waaw li njëkk awo di sant yàlla sant yàlla di sant tamit askanu Sénégal parce que daf ñuy firndeel lu am solo que ni kenn rek mënul te mbooloo mooy doole keroog ba ñuy woote woote bu njëkk ba ñu jaay ñu doole foqati suñu ay droit parce que dañuy fàttali ni que le droit à la manifestation est un droit qui est consacré par la constitution du Sénégal bi nga xamante ne souveraineté wu peuple bi moo ko décidé mu jaar assemblée nationale ñu leen di fàttali rek nekk ci droit yooyu très rapidement ni président de la république amee ay droit ak ay sañsañ ci ndogalam ci réew mi noonu la askan wi amee ay droit ak ay sañsañ ñu war ko mun a encadrer et ku jàng droit bu baax dans la constitution il est déjà permis de manifester mm-hmm. donc il ne s'agit plus d'autorisation il s'agit d'informer l'autorité compétente à savoir le préfet de la ville de Dakar ne ko ñun askanu Sénégal bi nga xam ne ñoo la jox jumtukaay jox la salaire jox la liggéey dañu soxla def yëngatu bërëb sàngam ba sàngam ci kaw lii alors motif bi ñu avancé woon keroog tey ñun wane nañ ne que ça ne tenait pas trouble à l'ordre publique saaga xaste amul dañu fokkati woon jaay ñu doole moo tax l'activité d'aujourd'hui plus même que la mobilisation ça a été de relever le défi pour fokkati suñu ay sañ-sañ ñu xam ne askan wi sonn na loof na jaaxle na mais ñàkkul fula di remercier keroog gis ngeen la jeunesse sénégalaise bi nga xam ne le président de la république dafa am lu mu leen digoon daf leen ne pétrole bii ñii di coow ak gaz bi ressources naturelles yooyu man dama ciy defar seen avenir am na sax yu ma ci projet projeté alors keroog bi ñu jaayee doole jeunesse boobu génn na ne président de la république li ñu offrir ñun ñii ñu waa aar li ñu bokk offrir moo ñu gënal mooy lan ñuy dencal nañ xayma ñaata la ndax du poson ndax waañ manqué wul ndax ñu ko ba mu leer ci présent bi parce que le, le futur se construit à partir du présent le futur c'est déjà aujourd'hui moo tax tey jii jam nañ ak suñu ay naataango di gërëm sénégalais yi nga xam ne c'est un peuple souverain c'est une jeunesse engagée c'est une jeunesse consciente c'est un peuple debout taxaw laajte ay sañ-sañam wékk ko ci ay ci constitution Sénégal parce que nag ñuy fàttali que ni jiiñu ñu kenn coow li bëri na ils sont manipulés Aliou Sall malgré li nga xam ne mi ngi ne fang kenn jeexu ko ba président de la république ne sama rak ba euh, El Hadj wax fa lu doy waar ñun yemoon nañ ci principe ne trois fondamentaux moo ñu tax a jug benn bi mooy la droit à l'information am nañ sañ-sañ ne li xew ci réew mi rawatina qu'on nous parle de milliers de milliards war nañu xam le droit à la propriété des ressources naturelles c'est inscrit dans la constitution à l'article vingt cinq su ma juumul ne lépp loo xamante ni koom-koom la nekk ci biir suuf seeg onshore ak or ak or lu mu mënti doon ñëw ko moom ñetteel bi nag mooy le droit à la manifestation bi ñu def ñii tey di ci sant yàlla le président de la république tey jii ak ay service am ak ñenn ci ay collaborateur am ñi koy tere ñoo doon ñëw fii di toog dem ci yeneen i bërëb di toog génn feneen ne ku leen ko na la xañ teg leen ci seen bakkan donc tey teg nañ ci suñu bakkan c'était ça le défi ba pare yàlla may ñu victoire alhamdulilah ñu am lii tey mais xam nga depuis lors euh, benn euh, dialogue de sourds moom moo ci am euh, ci fànn boobu looloo tax ma lay hmm. laaj ndax yaakaar ngaa ne génn di manifester rek ça va aboutir à quelque chose est-ce que li ngeen ci mbébét di ngeen ko ci am ci manifester ndax yàgg nañu gis Sénégal nit ñi di manifester mais est-ce que manifester jox na leen li nga xamante ne moom ngeen di kaas waaw ça wax dëgg yàlla contexte yi Et puis peut-être les gens ne sont pas parvenus à évaluer l'impact effectivement des sorties et des manifestations. Parce qu'une certaine opinion compétente, elle est internationale, une certaine communauté sénégalaise dans la diaspora et les communautés locales se sont impliquées ci 2011 yi xëy na nii tigi tigi doo xam impact bi mais am na lu mu joué ci xelu population bi ñun dañu ne le procureur de la République les institutions judiciaires euh, du Sénégal et les institutions compétentes parallèlement à notre action ñi ngi def benn liggéey mais ñun dañ leen di jàppale nous les incitons à mieux faire leur travail nous les exigeons à bien faire leur travail parce que nous comprenons certains messages entre les lignes quand le procureur de la République fait une sortie partisane disant qu'il y a des pseudo-experts des prétentieux alors que mi ngi am un mise en cause tudd ko waxul sax ci lu jëm ci moom wax na ba mu jeexal am ku ñuy jiiñ ñu ne jiiñ corruption jiiñ na luubal ñu porte plainte ñun depuis 2016 ak yeneen i acteur de première ordre acteurs politiques société civile amul benn sénégalais bu waxul ci problème mu euh, pétrole bi ñu noppi et là da nga ciy jàng sax que des autorités complexées parce que quand les ayants droit ont élevé la voix interpellé la normalement ne defal ñu ci enquête parce que gis nañ Nafi Ngom Keïta mu nekk ci digg l'enquête nag ñu dàq ko dàqin bu ñaaw ñu yëkkati kàddu laajte ñu ne ñu président moo sañ dàq moo sañ ñome ñu ne loolu rek la moo tax ñu dàq ko ñu ne waaw te dégg nañ ne da doon def enquête ci pétrole bi waroon dem ba États-Unis xaw ma ndax wala demoon na ba ba dellu si gis nañu IGE def un rapport seen naataango bu ñuy wax ma Madiambal Diagne 5 mai 2017 su ma juumut publié na ce rapport dans son quotidien nous nous l'avions lu gis si ay ay ay ay ay ay ay ay information yu extraordinaire loo xam ne def lay nirool dans la pratique à la violation de l'article 8 du code pétrolier par rapport ak kan moo am vraiment ko habilité am contrat ba ñu lay jox permis ñu gis ne que ci information yi nee nañ pour nga mën a sax balaa ñuy wax contrat dans les registres de Petrosen il faut que nga soit nga def appel à candidature manifestation d'intérêt wala Sénégal def appel à candidature ngeen ñëw wala yow nga def manifestation d' intérêt bépp entreprise bu ko def bëgg compétir dañ lay inscrire ci registre Petrosen boobu boo fa demee Petrotim turam nekk fa euh, disposition yooyu ñuy wax yëpp ak beaucoup de violations par rapport ak euh, vraiment déroulé bi loolu yëpp nekk dans un rapport officiel même si le président de la République a dit que ne pendant sept ans olof ci dégg juróom-ñaari at IGA am obligation chaque année defal la rapport nga war ko lii nga ne toog nga juróom-ñaari at gisuloo ko rapport boobu mu ngi ci loxo mi ngi ci loxo euh, euh, président de la république bu ko gisuloon démb ñun nee nañ ko président d'accord nañ gisoo ko woon mais tey rapport baa ngi nii qu'est-ce que vous dites vous et la justice sénégalaise sur ce rapport sur ces euh, pratiques yi ñu ci wax ak bu dee ay luubal la lan la moo tax aar lu ñu bokk jub woote ma xamal Sénégal yi nag que bu ñu jéem a jàppee nit ñi dof nit ñi dofuñu ay dañ leen dañ leen jox xaalis bu ñu amoon xaalis def ko suñu bopp mu feeñ ci ñun ay nit ñu am pas-pas dëkk ci réew mi bëri ci ay ndaw ñooy woote un petit groupe def seen groupe def seen liggéey ni nii lañ koy liggéey bu ñu wootee acteur bu mënti ñëw le président de la république on l'invite même bu dee sobriété beeg transparence ak bonne gouvernance bu muy baax ko am na mais ñëw ak ñun mais ñu débat ci loolu aar lu ñu bokk mais Abdourahmane tey jii bi coow li jugee ngeen tàmbali di ci kaas ak hmm. yi ni mel Euh, la justice est mise en branle euh, tey loolu rek waroon na nekk benn hmm. point de satisfaction boo leen di am xam na ne yoon fi mu nekk nii soobu na ci loxoom te en général on dit que une affaire hmm. pendante devant la justice on n'en parle pas sur la place publique tey jii hmm. mu mel ni point yu bëri tey ñu ñu euh, yéen a ngi ñaxtu mais tey ñu ngi leen koy xeexal même si vous récusez procureur bi nga xamante ne moom moo génn di wax waaw wax nga am solo dans un pays normal dans un pays où les gens ont constaté qu'il y a la normalité dans la pratique de gouvernance effectivement li ñu war a njëkk def mooy jox respect autorité ba ca topp mooy nga wóolu ko mm-hmm. mais y a un problème de confiance qui dépasse les personnes du procureur qui dépasse les personnes du ministre de la justice qui dépasse les personnes des magistrats et qui implique directement un acteur qui avait constaté les mêmes problématiques bés bi ñu ko naree jàpp ne ko yow blanchiment d'argent lañ lay jiiñ dañ mu xam ne y une justice qui est instrumentalisée à des fins politiciennes et dont lui il a été victime ak ñeneen ak ñeneen mu génn kaas woote wàllu ñu jàpp ci mu li dama engagé sa responsabilité mooy son discours pré de préélectoral balaa ñuy koy fal mais il avait engagé les Sénégalais dans une dynamique quand même de restauration de de des principes justice bu jaar yoon ñu constaté ko tey jii kenn du woon wax mais ngeen baal ma avec le respect qu'on leur doit mun ñu am confiance suñu justice boo xamante ni da ngay jël rapport IGE bu 2014 yaa ngi may dégg mu impliquer une personne recommander en tout cas la rectification d'un mode de gestion de la caisse d'avance de la ville de Dakar nga jàpp ko procureur génn def conférence de presse boo xamante ni tu as l'impression que ne séance tenante dafa dafa dafa dafa culpabiliser ba tëj sur un virgule huit milliard l'institution générale des finances c'est une structure de l'État du Sénégal très compétente en matière de contrôle financier elle il met en cause un acteur un ministre administrateur du budget ordonnateur de dépenses du nom de Mame Mbaye jusqu'à présent li gën a metti ci nga xam ne moom la ko état Sénégal teg mooy jox ko opportunité mu ñëw toog ci canapé bu nooy raay biiram ku ko neex saaga naan defuma dara yaa may dégg rapportu IGE bi nga xam ne dañ ne le président de la République moo ko commandité à la suite d'une plainte qui a été portée par une dame nekk directrice su Toloi Oy bi mu jàppee ne dañ ko léser ci contrat bi ñuy signer Frank Timis moom dafa dem porter plainte bi mu porter plainte ñu recommander un rapport ce rapport a été clair et explicite disant que la législation a été torpillée le code pétrolier a été torpillé le contrat bii ñu signé nañ ci dellu ginnaaw justice buy doxee noonu dans la complaisance et la sélectivité dans la gestion des dossiers on n'a aucune confiance en ce système mais au-delà même nous avons, par principe, de manière basique, même si cette justice fonctionnait très bien, juste bi ñuy manifester il y a d'autres Sénégalais qui vaquaient à d'autres occupations ci seeni liberté xam nga lan laa bëgg nit ñi comprendre waaw. parce que bu fekkente ni bi wóoluwu leen justice bi wóoluwu leen tamit ki ko jiite léegi manifestation bi ñuy manifester wu fu mu jëm bu. te xanaa kon mooy na fi waa ji jóge wala lan parce que bu fekkee ne mi wóoluwu leen tamit si parce que mbir mi bu fekkee ne mi ngi ci yoon te hmm. yoon ci boppam doyatut nit ñi léegi manifestation bi lan mooy bit bi quoi fan la war a jëm waaw ñun ñun ñeen baal ma parce que aar lu ñu bokk peut-être wala COS M23 mais dama fi toogal kuréel boo xam ne dañuy waxtaan ci ni ñuy liggéey Abdourahmane Sow ak ñi muy liggéey depuis 2012 ça ne nous intéresse pas mm-hmm. que Macky Sall na dem wala bu mu dem kooku lijjanti wuñ ko non non non ah. li ñuy intéressé mhm. mooy li ngay xam ne mooy charte yi na ko Macky Sall respecté par force charte yi loolu mooy principe bu COS M23 te jàpp naa ne aar lu ñu bokk. yéen jàpp ngeen ni dina respecté charte yi waaw na dem na toog ça nous intéresse non charte yi quoi ndax dina respecté charte yi laa wax non charte yi pour mu respecté ko nag mm. xam nga des fois kuy waaxu kuy football du lañ koy kàttu ñi ngi dem fan zone di supporter ji Lions yi pour lan la pour ñu gagner waaw ñu tamit on supporte le procureur waaw labbi law fas la pour mu gaaw bu dañ ko bëgg woon ne askan wi sax ñun kontaan nañ di ngay góorgóorloo mais comme que da nga daan yéex comme que da nga daan jaawale affaire yi ñun dañu bëgg nga xam ne tambour battant procureur ni mu génnee nii kon doy na leen quoi dal na seen xel non déggoo olof de dama ne la mhm. procureur amaana ni muy doxee dafa yéex da daan yéex wala da mhm. daan jaawale mhm. ñun dañ bëgg askanu Sénégal le président de la République mm. ay collaborateurs toutes ces personnes qui sont impliquées dans ce dossier qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir qu'elles sache que pouvoir bi Sénégalais yi jug nañ ni dafa am loo xam ne dafa war a dakk liñ moom nga xam ne dafa nar a tënk suñu avenir dañ koy surveiller quatre objectifs la ñu am aar luñ bokk muy la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des ressources naturelles de ce pays ñun ñëpp ko bokk mm-hmm. beneen bi mooy que la justice sénégalaise mu tëddee njaaxaanaay mu bàyyi xoqatal nit ñi parce que nag bu ñu fi nekk naan jàkka ji noddu naag ku fi indi dossier déclassé déclassé wuñu dañ ne on va surveiller pour que liggéey justice sénégalaise mu objectif te mu def ko beneen bi mooy contrat yi baal moom a jeexal président de la république dem na fi campagne ne comme euh, contrat yi mën nañ ci revenir et c'est normal mën na ne bu dee fa am contrat yoo xam ne c'est contre l'intérêt du Sénégal qu'on revienne sur ces contrats ñu si ñu ko bi si des mooy suñu xaalis bu rëcc nañ ko indi fii tabax ci ay lopito jox ci xale yi ñu liggéey faj yi ñi feebar doxal dëkk bi mu dem yoon loolu mooy aar lu ñu luñ bokk leneen lu dul loolu ñun ñu jëm ci ko mm-hmm. Mm-hmm. côté de l'opposition ak yooyu parce que tey aussi gis nañu euh, ñenn ci ay leader opposition boo xamante ni ñi ngi bokk ak yéen ci aar lu ñu moom gis nañ ci euh, l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye ñoom Thierno Alassane Sall ak yooyu je pense que ñoom également bokkoon nañu ci gouvernement Macky Sall même bu fekkee s'il est bien vrai c'était avec euh, Souleymane Ndéné Ndiaye que décret boobu moom lañ ko signé mais Abdoul Mbaye est-ce que yéen aussi toog ngeen pour xool ñoom ban rôle lañ ci joué woon et puis par rapport ak loolu naka ngeen mëne a ànd yéen ñëpp te nga xam ne ñii également amoon nañu benn temps bu ñu nekkoon ci kii bi quel pourrait être également leur euh, leur rôle ou bien leur implication ci loolu waaw xam nga bu ñu nee aar liñ bokk hmm. dañu ne ñëpp ubbi woote ku mu neex nga ñëw Sénégal la ñu wax mais tamit il faut pour ñu changer réew mi fondamentalement muy man muy ustaas muy kum mun doon xam lu ñu war a njëkk dindi ci ñu mooy faral nit di bàyyi dëgg parce que dañu nekk foo xamante ni pour ñun dañ jàpp ne problème bi dafa sérieux trop on parle de milliards on parle de de de, de violation de de la loi ñii di wax sax haute trahison moo tax il faut ñu tey ci buñ demoon ba tey Abdoul Mbaye que j'aime bien ou bien Thierno Ousmane euh, Alsane que j'aime bien buñ demoon ba la loi objectivement mu prouver que ñoom ils sont impliqués ñoom dañu ne c'est des justiciables ils doivent répondre devant la justice sénégalaise gis nga dimension boobu bu ñu ko inscrire Sénégal Sénégal dootul changer mais ca jël benn ba bërëb nañ dem ku mu neex nga ñëw mais dafa war a gën a dëgër quoi parce que li ngay wax nii man pour man dafa xawoon nooy quoi hmm. am nga président Macky Khalifa Sall moyen de ñaata la ko jàppee na ko ratt ci kaso bi Karim Wade bi ñu ko dugal ci kaso bi ñaata kii li nga xamante ne bi moom la ñu wax Aliou ci wàllu Louga da ngeen a war a wax te d'abord li njëkk mooy nañ jàpp Aliou ne ko ratt ci kaso bi ba noppi nag ñuy soog a wax justice mi ngi jaar ci yoon wala jaarul ci yoon waaw loolu sa gis-gis la dama non mooy war a nekk seen gis-gis parce que xeex tamit day saf mondial quoi mais xeex nga bëgg a xeex bi di ko jaar ci harmonie yooyu te ki nga xam ne moom ngeen di xeexal xeexee wut noonu vraiment man je ne sais pas quoi Sadio waaw dama ni la nañu ne rupture. no saa yi na tàng ko waa damay da rek bu ñu nee rupture nag. xam nga euh, am na fu ñuy kafe mais am na foo xam ne kaf amatu fa. ah kon pour kaf nii li may wax. non da ngay kaf. non da ngay kaf yow da ngay kaf non non déglu ma parce que non xeex xeex la. waa déglu ma déglu ma Sénégal. man kafuma Sénégal oustaz. Sénégal dafa nekk foo xam ne mën na jékki-jékki rek këpp. Mhm. surtout avec la malédiction du pétrole. mais bien sûr tout ça. ñëpp kenn bëggul jël responsabilité. tëj Aliou Sall lu lu muy këppee Sénégal. non non non mënuloo ne nañ ah, àtte xamuma ah. damay laajte. Mhm. ba pare ne kii moo coupable lu mu la ko nuru nuru nuru àndal ak maandu te. Mhm. ba mu wóor la ne moo coupable xam nga kañ moo am problème mu wóor la ne il est coupable kenn defu ko dara. Mhm. amoon na fi. présomption d'innocence am na quoi. non nous sommes obligés parce que ouais. on l'a on l'a combattu pour Khalifa Sall. on l'a combattu pour d'autres. Mm. mënuñu mm. combattre la présomption d'innocence pour mm. d'autres. Mm. pour tey jii objectivement ñu ñëw euh, ñu bëgg euh, ñu subjectivement ñu bëgg a wàcc loolu. kon vous ne serez pas daf ñuy dab dañ bëgg ne wane ne ñun. xam nañ fi ñu jëm yoon na tegu ci yoon amul par parloo bés bu ñu demee ba yoon prouvé na que kii il est coupable te kenn laalu ko nag boobaa ñu xeex parce que nag du ñu sàggan ci ay ci si ma neex wala ci ay caprice taal dëkk bi mais nañ liggéey pour prouver que ne il est coupable d' mhm. moom ak keneen ku mu mën ci doon. ñu may Karim daf ci bëggoon intervenir par rapport ak loolu. waaw juste euh, di dellu si waat rek di di remercier mon frère. Euh, di wax ni man man d' abord euh, man ni ma gisee. xam nga sénégalais d' abord sénégalais yi d' abord dafa am lu ñu war a comprendre pour man foofu la affaire bi nekk li jiitu noo d' abord xam nga xeex xam nga sànq Saniogo da nga ne xeex mais xeex ñun suñu xeex bi dafa am lu ci xeex mooy nga xam lan ngay xeex. Mhm. kan ngay xeexal ak naka nga koy xeexee lan ngay xeex parce que ñun déjà sénégalais yi dafa am loo xam il faut ñoom ñu comprendre ko mooy sénégalais yi ba léegi ñoom xamuñu lan mooy république c'est-à-dire loolu dafa am solo nan la état de droit di doxee te li ko waral du dara lu dul parce que ñun suñuy dirigeant cest à ñoom dañoo jàpp dañ sénégalais moo tàmm lool moo tàmm buur président nañu may ngir yàlla dañ koy ñaan fii amul ndox mm. nañu defal fee courant fekk président suñu mm. mbindaan donc loolu benn la ci xeex bi mooy lan ngay xeex wala pour nga xam yow da nga war a indépendant nga xam ne yow da nga nekk ci état de droit ak sa ak sa yelleef ñu jox la ko ndax bépp réew boo gis ci ay charte lay tegu loolu la loolu la ñuy wax charte ndey réew mi loolu mooy constitution wu Sénégal léegi constitution bi dafa joxe ne devoir la ci citoyen bu ne maanaam bu fekkee ni ñu jiite réew mi charte nday réew mi yi nga xam ne ñoo ko tënkoon buñ ko respecté tulee devoir la ci citoyen bu ne mu jug arraché devoir maanaam mu taxaw réclamé ko loolu benn la mooy sénégalais yi bàyyi def Macky Sall buur naan mooy buur mooy borom réew mi réew mi amul borom doo buur njiit nga dañu la jiital rek ay carte moo la fal benn beneen bi mooy constitution au Sénégal moo may sénégalais bu ne mu war a mën a manifester benn mu manifester léegi nag état de droit bi may wax mooy dañ ne état de droit li ko géré mooy judiciaire législatif ak exécutif mais problème bi mooy exécutif mooy Macky Sall ci boppam Sénégal il faut ñu comprendre leen lan ngay xeex nag nga koy xeexee exécutif boobu ak judiciaire bi euh, ak euh, législatif exécutif dafay piétiner ci judiciaire di piétiner ci législatif donc kon état de droit bi ñuy wax justice bi ñuy wax Sénégal amu fi c'est de l'utopie te loolu pour ñu leeral Sénégalais yi ne amul mooy ñu la Karim Wade de dañ ko jiñ ay milliards ne dafa sàcc àllu réew mi réew mi yëpp ñoo doon réclamer ne Karim Wade na fekk dafa jël àllu réew mi na ko na ko na ko na ko nañu ko delloo Macky toog ci pouvoir bi ne moom li muy njëkk xeex mooy loolu xaalis bu salte dootul dox ci réew mi bi ko mu tëj ko at ba exil la cest à yooyu yëpp dafa xew te bu ñu fàttee ni Sénégalais yi dañu jugoon di di ànd ak Macky Sall ci ni ko Ablaye Wade dàqe woon mu dem ba nekk président assemblée nationale yooyu bu ñu koy fàtte léegi loolu bi mu amee Karim Wade ñu gis ni mu dundee Karim Wade après Khalifa Sall ñëw encore te ci nguuru Ablaye Wade bi dafa am ay activiste nit yu nekk yu taxaw naan Karim Wade sàcc na nangam am nañ ci ay preuve c'est que yooyu yëpp nekk ay mbir yoo xam daf fi amoon leer ne fang mujjul fenn ay milliards yu dul jeex lañ yàq ci topp Karim Wade loolu c'est-à-dire justice dama waxee ne justice moo amul Sénégal cest à il faut ñu wax wax ci kon gëmu ni procureur enquête am bi xoolal mu génn gis dans l'histoire procureur bu génn procureur bu génn di jël position ne yéen maanaam ci koñ bi ñu ne dafa am ku ñu fi jam paaka procureur ñëw ci koñ bi ne koñ bi nañ génn woon ko naka la waa jamee paaka wala nañ def enquête pour naka lañ ko jamee paaka lan moo tax ñu koy nga xam ni moo jàpp Karim Wade tëj jàpp xalifa euh, Sall tëj ko ba mu neexoon naka la mën a bàyyee euh, Aliou Sall te damay wax ni. dama juste rek ma daaneel si benn affaire bu ndaw rek. il faut Sénégalais yi comprendre comprendre lenn procureur génn bi mu génn du génn pour Sénégalais yi dafa génn pour opinion internationale bi faalewul Sénégalais yi bi mu génnee dañ doon wax mouton mu naan bouton ñu ne fii di wax ay waxu euh, étudiant bu ñu rey ci yoo xam dossier yoo xam ba mu waree leer dafa yàgg te fi ñu ne waxi pétrole moo xew maintenant boo taxawee di manifester ñun li ñuy mooy pour leer parce que. ay preuve yu leer Macky Sall ak Franck Timis yàgg nañu xamante bien avant Macky Sall di nekk président bi muy nekk autorité ci nguuru Abdoulaye Wade la nekkoon ak Franck Timis donc ñun mënuñu mënuñu seetal Macky Sall ci lii léegi nag il faut pas tourner autour du pot euh, autour du cest à il faut nga dem directement ci ci ci wax ji mooy Macky Sall ci boppam moo war a wàcc ci askan bi parce que li mu def haute trahison man loolu laa gëm. itam dañu leen euh, dégg Abdourahmane ak euh, yéen Karim. Euh, ngeen wax euh, que Macky Sall mooy euh, principal concerné bi moom si boppam na jël position mais position boobu ngeen koy laaj mu jël ak ay dogal pour mu jël ko itam yaakaar naa ne ci julli korité bi jël na position ndax bi mu taxawee daf leen ne sama rax sama rax ci dans une république est-ce que dans une république am na rax am na doom ak yooyu kooku ngeen di xaar tey mu prononcer wu est-ce que vous pensez que ne il va se prononcer awa man dafa am lu ma jàng ci compagnonnage bi activisme bi engagement bi des fois problème am yow di nga xam fu muy mujjee la problématique ki sa pose mooy par quel bu prendre la chose lu am solo la et au-delà de xeex bi ñuy xeex lan nga mën a def pour sa problème réglé on n'a pas beaucoup de moyens dama yàgg dégg nit ñi naan opposition bi dafa ragal opposition bi dafa lii alors l'opposition dit qu'elle est guerrière l'opposition descend dans la rue l'opposition se fait mater elle montre ses limites elle retourne chez elle et les Sénégalais sortent même pour vous dire bu leen ñu yàpp yéen ñëpp a yem patati patata boobaa nag gis nga nit boo boo la yàlla joxe xel pour nga jëfandikoo ko parce que ñun dañu bëriwul ay alternative xam nga la ñu am pas-pas ngëm-ngëm ak conscience ci li ñuy xeex parce que tamit li ngeen may laaj tontu am na je ne je ne suis pas là pour dire que Karim a été coupable ou pas et d'ailleurs génn nañ ne CREI yi c'est une euh, c'est une euh, euh, institution liberticide mais li ma ciy jàngal par force il faut ma assumer ko que à un moment donné li ñuy jiñ Aliou Sall nii jiñoon nañ ko Karim waaw li ñuy jiñ Macky Sall nii jiñoon nañ ko Abdoulaye Wade le peuple était sorti plus en masse que ñii tey en fin de compte sax boo moytul nit ñi dee nañ mais bu dee dans la confrontation ñun mujjuñu gagné nañ waxante dëgg Ablaye Wade le problème mooy lenn la on a des on a des des acteurs déterminants qui refusent de jouer leur rôle parce que ñun dañu xaw a néew doole ci coolee fi bëri rek dañu xaw a dëgër rek mais dañu néew doole am na ay régulateurs sociaux yoo xam ne à un moment donné mm. plate bu ñu toog mu wadd opposition bi la wala. non l' opposition déedéet c' est les régulateurs c' est des c' est les familles religieuses. religieuses c' est certaines certains leaders d' qui pouvaient trancher et influer sur le comportement des sénégalais. Mm-hmm. parce que xaalalaaxu bi bu yeggee rek ñu xam fu dëgg féete mais du ñu wax ni mu ko waree ba ñëpp xam ne kii ñii nekkul ci dëgg te duñ ko faral mais bu dee dafa nekkul ci dëgg bay gis ñenn gars yi bëgg ñëw tiital ci ñii ci jàkka yi ci jotee jotaay yi naan ñu bu leen taal réew mi bu leen lële di ko defal propagande mais le problème est difficile je n'ai rien contre eux am na ci ñoom ñuy jouer seen rôle mais pour une certaine majorité qui est là pour ses propres intérêts dañuy jouer en faveur de ñooñu au détriment de de la souveraineté du peuple il faut ñu mm. waxante dëgg ñun dañuy dem ci terrain bi gars yi dañ lay songu ah. tu recules ci n'y peux rien et un certain peuple est là euh, complice de de de est-ce que yaakaar ngeen ne dina am euh, mm. aboutissement bu fekkee ne tey jii euh, seen doole bëriwul ci xeex. day am aw naam yéen a ngi xeex. non day am xam nga li ma. ci naka hmm. ci kilifa diine bi mu ñëw euh, taxaw ak yéen ci place de l'obélisque. wala boog ñoom am nañu façon boo xam ne peut-être ñu ngi koy def te yéen yóbbu. dama gisoon kilifa diine goo xam ne wala ñenn ci ñoom ci kër tiijaan yi kër murid ci kër yëpp. Hmm. am na ñoo xam ne wax rek wax. am na ñoo xam daf leen daan jaral ñu jógee seen kër dem fekki président de la république waxu ne lii du dëgg du yoon am na amoon na fi hmm. wax rek am na fi mais awa xamul luy lébbi su ma doon yeggalee sànq mooy tous les tyrans finissent à terre et sànq sans pour autant dire que diw tyran la am déet mais am na ñu fi amoon doole jeex na dañu mujj di leen seeti cachot même bu dee dañ leen jaay doole il faut que ñun ñu fort patient xam ni waa ji lu muy lu nuru nuru nuru ne am na doole ça c'est pas de la force vous savez c'est quoi la force c'est la foi que nous avons dans ce combat que nous et espérant que Dieu va nous accorder de la santé et du temps parce que allah kulli haal billahi bés dana ñëw Macky Sall dina jeexal. Mm. et il nous rendra compte. et en même temps on continue ce combat. par rapport ak par rapport ak loolu sax awa je pense que même Babacar Mbaye Garab donc moom mën na ci tamit wax lu lu am solo parce que bokk na ci ñi nga xamante ni convoqué woon nañ leen également foofu à la DIC pour audition nest pas. Adja Rama maa ngi lay ziar comme ni ko waxee si njëlbeen rek di am mbégte lool bokk ak sunu jeune frère yi Karim wax dama koy suivre lu bare bare Abdourahmane le panque bi mooy sunu énième plateau à peu euh, defe naa li ma seede ci ñoom rek mooy li Sénégal yëpp gis ci ñoom ay nit yu bëgg seen réew ay ndaw yu pare joxe seen bakkan ngir lan aar réewu tey waaye aussi ëllëg ndax loolu moom mooy sensu combat bi tey xam nga bu ngeen fàttalikoo Sénégal dafa nekk ci réew bu tudd Afrique. Afrique daal di am ay siècle yoo xam ni def ko dund ci ak njaam esclavage ñu jóge ca mu am lu ñuy wax colonisation mu ñëw ci diggante bi sax buur yi nekkoon fi am doole ku ci nekk ñun yaa ngi fàttaliku bi Moussa Ngom daan woy yàlla na ko yàlla yërëm naan danga nga daa bay sa tool mu ne gàññ mu ne dugub ji rafet gerte gi ni buur teg ci loxoom ñi la jël naa ko jokkaar ci ni da ngay tëdd ba guddi jot buur fëgg ndëndam ni fii ku fanaan di jaam mu ne nag waaye loolee dañ na fi tey dañ di nag luxusuñ ko ay nit ñoo doon xeex ba mu jóge fi esclavage dafa am ñu xeex ba mu jeex colonisation dafa am ñu xeex ba mu jeex bu ñaate wàll suñu buur yi bu ngeen fàttalikoo bi africains yi amee indépendance benn jamono vers les années 1977 cent 1970 am na ay ñu commencé di yëngu pour Afrique mën na disposer de ses ressources yi nga xam ni lu ci ëpp sànku na parce que esclavage moo ko yóbbu beneen bi colonisation beneen bi buur yi moo tax ku nekk ñun mu ngi fàttaliku ne en 1981 bi gars yi di voté ce qu'on appelle la charte des droits la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ci yooyu droit daf ci am benn boo xam ni ñu ko tëddee droit au développement maanaam ñun africains yi am nañu droit am développement ni ko yeneen réew yi amee waaye ci naka ci sukkandiku suñu am am yi ni yàlla may foofu rek mu ubbi benn bunt pour leeral ni bu ñu kenn gëm la suñu pays dañoo néew doole dañoo ndóol dañoo am nag malchance sam ay dirigeants yu ndóol ndóol ci fit ba lu leen Trump wax ñu nangu ko pourtant am nañ xam-xamu déprofesseur yi nga tey jii yaa ngi gis suñu ndaw yi di jóge suñu réew yi di dugg ay gaal di dee ci géej gi tudde ko Barça ak barsa gis nga Barça su ma nee Barça rek mooy Europe wala États-Unis maanaam symbole la la fa nekk développement ba ba tax suñu ay ndaw xemmeem ko ba dafa dem malaaka defaru ko jine defaru ko ay askan ya fa nekk ñoo ànd ak seeni njiit liggéey ko loolu pour wane ni mën nga am sax njiit bu dëng waaye su askan amee fulla njiit ba par la force dafay tegu ci li askan bi bëgg loolee nag la ñoom Abdourahmane Sow mi ñoom Karim mi ak ñeneen ñu mel ni ñoom ak ñu ñëpp ànd di xeex ngir lan askan bi nga xam ne moom moom moom le pouvoir mu teel ko boppam Abdourahmane ko sànq Macky Sall mi ñu jiite tey am na ñu ko ëppoon doole fuuf parce que askan gën dañoo dellu ginnaaw ñaanu yàlla nag egg moom foofu te ku xool li xewoon ci njaax printemps arabe seen mboole yi fa daa génn moo gën a néew fuuf mboole ma xam gis naa ko tey ci manifestation bi kon du question wu nombre xam la ma solo que détermination ak persévérance te it man mënu ma woon foog ni tey Sénégal dina egsi fii xam nga tax dañuy dem ba 2012 Macky Sall campagne nit ñi ànd xeex loo xam ne jàppoon nañu jaaduwul parce que Ablaye Wade ñu bari à l'époque ko doon sikkee mooy lan wala bon gouvernance waaye kenn waxul woon ñu liggéeyu réew mi franchement infrastructure kenn mësu ko ci attaqué Macky Sall bi mu changé bi mu falo dig ñu changement tënk ko ci ñetti baat ay bon gouvernance gouvernance vertueuse ay sobriété ba tax sax muy yokk ci ay discours ne je ne personne kon tey mbir mi sax nga xam ne njambale koo xam ne yàq na daru Sénégal ci bitim réew hypothèque avenir ay ndaw du xeexu Abdourahmane Sow du xeexu Karim du xeexu Sandiago xeexu réew mi yépp la bi nit ñu jógee ñu gis ni coole yi commencé am te li ñu doon wax on parlait des ressources naturelles qui appartiennent à nous d'aujourd'hui mais également aux générations de demain ñun nag ñu am devoiru fay bor suñu mag yi xam ne ñun turoon seen dette ngir réew mi si fi mu toll tey ñu war leen fay bor en quoi faisant maanaam pousse bi nekk suñu loxo bañ a réer suñu ay loxo waaye également ñu am devoir nag protéger liñ d'abord Sénégal war a dundee ëllëg suñ ko defal dafa mu benn baat bu ñuy wax irresponsabilité nañ ko nangu ñu ne comme Abdoulaye Wade génn na wax na affaire pétrole bi Aliou génn na tontu ñi ànd ak moom di sax jéem a leeral seen wax dafa gën a lëndëmal xel yi ñu ne woon au niveau de Alliance Sauver le Sénégal dans la mesure où am na benn kuréel bu ñuy wax OFNAC te la tax ñu teg ko fa jox ko xaalis bu bari mooy lan na xeex wàllu ger am na pouvoir u enquête ci mbir mu mel nii moo taxoon le vingt neuf décembre ñu dem saisir OFNAC adressé ko une plainte ma ciy profité di gën di di gërëm ak di sant tey ñaanal ki ko jiitoon bi Nafi Ngom Keïta ndax dañ koy bind le vingt neuf le trente et un mu tontu ñu ci biir tontu bi mu xamal ñu ni jot na lettre bi te incha allah dina jël jumtukaay yi mu war a jël ngir leeral mbir mi waxu war a jëm ci da ko wax pare jëfe ko ñun ñi déposé plainte bi déglu nañ ñu déglu nañu ay yoon yi yoon yi yoon yi yoon ñu cité ay témoins na fi ngam déglu témoins yooyu moom équipe boobu dem na fi ba États-Unis saa juróom confiné dem na ba déglu le compatriote Baba Aydara que nous saluons au passage bu ci liggéeyu liggéey bu am solo jóge fa war a dem Londres gaa yi dàq ko amaana sax bu demoon tey tey lii BBC wax ba deru Sénégal yàqu bi du ci am ndax man gëm naa ni le linge sale peut se laver en famille waaye day fekk ñu ngi ko sëqal d'accord ko ndax mbir mi lu ñu mënti wax baaxul ci image Sénégal hmm. corruption baaxul ci image Sénégal biñ ci jógee BBC daal ñëw am yu mu leeral foofu yit ñu am ci mbégte waaye am ci naqar mbégte gi mooy lan lañ doon wax avant ñun sax ay daa ko wax après ñu indi di ko wax wax ci sax lu ëpp luñ doon wax ñii di ko safantal te am na yeneen baat amaana yu ñëpp doole wax ko ba tey ñëmutuñ koo bañ waaye la ma ci naqarlu mooy réaction bi ci am ndax bu leen fàtte ni président moo njëkk taxaw génn wax am sax ay kàddu yoo xam ne jàpp naa ni rafetul suñu diggante ñun ak moom en tant que citoyen rek ndax nag le respect est réciproque damaa foog ni bu ñu président Macky Sall jigee bonne gouvernance ñu ko ci jàppale ñun pour mbir yi leer mu dig ñu réduction des comptes ba tax mu créé OFNAC jox ko budget bu ëpp solo lool li mu fekkoon voté en 2012 ce qu'on appelle code de transparence ñu nekk ay citoyen mu am yoon bu ñu tënk muy constitution te boobu yoon xamal ñu ni bépp citoyen dafa am wareef maanaam par force ci moom mu aar réewam ci agression waaye fexe aussi ba xar tànk tubéyam ci lépp luy xeex corruption kon bu ñu bëggee nekk ay citoyen exemplaire ba tax ñu ne kon li ñu dégg ci mbirum corruption la ñu fexe ba leeral ko la jaadu mooy ñu ne ñu waaw góor waaye di tuddee ñu ne ay rambaaj ak naa fex jàpp naa ñu rafetul te nag le respect le respect non xaaral loolu yemu ci yemuñu ci de non président wax pare no président jóge ci juste après kan moo tontu beneen ministre Amadou Ba pare benn maanaam ça va dans tous les sens loolu gën a teeral suñu xel xaaral rek loolu gën a teeral suñu xel ke ni ñii li ñeen tuumaal dëgg la ndax ku moom xar mi rek nga bàyyi buum bi yaa tuumaal sa bopp parce que bu ñu fàtte ni am na yeneen scandale ki wax na ko fi ñu fi déggoon mais mosuñoo gis une réaction bu toll noonu au sommet de l'État gis nañ fi Mambay ñaa Prodac ay vingt neuf milliards mais gisuñu président wax ci dégguñu benn ministre wax ci gis nañ fa ay décrets généraux qui ont été épinglés par des rapports institutions yoo xam ne ci réew mi lañ bokk gisuñu ci benn kurel taxaw wax ci gisuñu benn parti wax ci kon lañ ca jàngat pour conclure saa njëg balaa sa mooy ni dafa mel ni ci biir mbir mi dañu bëgg créer Aliou Sall def ko benn super sénégalais benn superman ba ku laal rek yat dal sa kaw xal lakk la li ñaan kii si fort loolu egg na ba ci tey ngay dégg ñoo affaire Aliou Sall ci affaire pétrole ma dégg ay nit naan mairie Guédiawaye lu ci seen yoon ma dégg ay ñu naan waa CDC ña ngi jàppale Aliou Sall may dégg association des maires de Sénégal amaana sax suba sax ngeen dégg association des chauffeurs de Aliou Sall mais finalement li muy jur mooy lan dañu créer benn no benn nit def ko on intouchable ba kenn du ko ñemee tudd. waaw xam nga da nga def jeunesse jeunesse u njàmbaarteef mais njàmbaarteef boobu damay wax ne contexte yi bokkul et les hommes également diffèrent muy benn beneen yaa ngi wax élan de solidarité bi nga xamante ne moom moo topp yëpp Aliou euh, des ministres de la République association des maires ñeneen ak ñeneen ñooy jug est-ce que du ñooñu tamit son ils sont éclaboussés euh, par euh, scandale bi nga xamante ne moom moo am ba ñoom ñëpp jug taxaw nekk bouclier wam euh, taxawal benn système de défense. waaw loolu de xamul tax aw ma ci yaakaar parce que wax naa la sànq ñoo dégg ñuy wax mën naa leen comprendre dans les principes parce que Sénégal da ngay sax rey nit bu leen ñëpp yaa ko rey ñu yóbbu le tribunal waaye say mbokk say xarit ñëw waaye li ma d'accordul ñu la bëri deful dara. ñi nga wax ni mën nañ ci am responsabilité mais par exemple moi je suis conseiller à la ville de Guédiawaye mais mënuma gis ville de Guédiawaye mairie ba ban rapport lañ mën a am ak affaire yu pétrole boo xam ne Aliou Sall ak Franck Timis ñoo ko luubal waa CDC fonds yooyu dugal ko ci mairie bi am loolu nag mooy garaaw nag loolu moo garaaw loolu la war a xeex moo tax ma ne la fépp war a leeral saa may ma rek ma wax la foofu parce que fii wax ci dama interpellé en tant que doomu doomu Guédiawaye ñëpp am intérêt mu leer jël di ko géej a wayeel comprendre nga c'est que il faut que ñu xam ni du ay du ay problème localité du ay problème gox-goxaan xam nga waaw bàyyi naa ñëw ci yow après waaw naa ñëw yéen da ngeen di tromper on parle non ñi dañuy tromper cible c'est que bu ngeen ñëwee ah, gox-goxaan ngeen jëm <laughs> te mbir mi du ay gox-goxaan c'est que li nga dinaa ci après bàyyi ma tontu ki ba pare sinon dama sax sax damay jaxase gox-goxaan moom moo ne sànq affaire mairie Guédiawaye ma ne la mairie Guédiawaye mënumaa gis ban rapport waxuma mairie sax dama ne association des maires yi jukk ah. des ministres de la république xam nga da nga ne nit mën nañ ko jàpp sax ay mbokkam ñëw ñooñu ay mbokk lañu ah. mi ñii ay ndaw réew mi lañu ah. des ministres de la république qui s'érigent en bouclier mm-hmm. qui assurent la défense de Alioune Sall est-ce que ñooñu yaakaarul ne ils sont éclaboussés moo tax ñu jug di wax justement c'est que pas normal loolu nag moom lay loolu moo jaaduwul maintenant dafa am loo xam ne saa njóge Abdourahmane mooy tey coow nañu ba procureur génn wax procureur de man bokk naa ci ñu ko wuy ji naa sama la njëkk a woo ndax ci pétrole bi mm. parce que liy bañ ëllëg rek suñ demee feneen ñu ne moo tax wuy jiwuleen woon procureur mii nga xam mooy di ñeen bokk réew mi te mbir mi ñor nañ ñor goo xam ni ni mu ñor Sénégal yëpp muy procureur oo muy marchand ambulant oo muy pêcheur fu ñu mën ci woo pour mu leer dañ fa dem mu nekk sax biir géej wala asamaan nañu wut ñu jàppale ba ñu yegg fa parce que encore une fois dañoo am devoir préserver li ñu moom ak suñu ay njaboot moom ëllëg waaye xam la moo tax sama xel tee lool ci affaire démarche procureur dafa am ay baat ñu commencé tàmmal ba ñu ñu bëggoon nangu muy lan le temps de la justice n'est pas celui des autres waaye dans la mesure actuellement Sénégal dafa am lu ñuy wax mode fast track mu nekk sax en vogue même au cœur la République yaakaar nañ ne procureur tey ji mën na jëfe moo dafa saraak boobu en quoi faisant il a une enquête boo xam ne Nafi Ngom Keïta moo ko defoon déglu lu ñu baree bari xam ci lu baree bari dañu bëgg rek procureur jël conclusion wu enquête Nafi Ngom Keïta def ko ci dossier bi su parewul it mu wax ñu fan la yamoon ñu eggale ko ndax loolu au moins dana tax ñu gagné en temps li ci toppaat mooy ñun ginnaaw bi ñu waxee fu si xam-xam yemoon ci ginnaaw bi am na ay kilifa yu bokkoon ci ñoom gën tey taxaw am lu ñuy wax ku ci mel ni Abdou Mbaye moo nekkoon premier ministre bokk na si suñu décret bi mm-hmm. ku ci mel ni Thierno Alassane Sall nekkoon ministre de l'énergie xam fa lu baree bari mm-hmm. appel dossier petro ku ci mel ni également Clédor Sène ça il faut le mm-hmm. mu ñëw wax dëggal di wane chaque fois xam-xam ci pétrole moo tax man jàpp bu ñu dégloo ñooñu yokk ci ñu déglu woon euh, OFNAC mbir yi dina gën a gaaw ci jeexal ñu tax sama xel gën a tee mais Babacar ñenn ñooñu comme Thierno ànd Alassane nee na du ci tontu waaw ñoom na ñaari question léegi ça va non non il faut nga déglu ma c'est que yow dañ la woo nga dem dig ah. yow yan dossier parce que yaa ngi cité yow li ngay yow dafa mel yow kon yow yan dossier nga yoroon ba tax yow ñuy woo la pour déglu la yow lan moo taxoon ñu déglu quoi man c'est que man yow li bi ñu nee Babacar Mbaye Mbaye Gara moom mooy ki ñu jëkka woo gars yi wax dëgg fa yàlla man bi ma nee tëll yam ci yow ay ree daf ma jàpp dama ne may ngaraaf luy nga ñam ci wàllu pétrole lu mu ci xam donc man bëgg naa nga ñëwal ma ci loolu quoi xam nga foofu la ñuy naxee nag mbiri du mbir pétrole de mbiru lan la mbir yi mbiru suñu alal gunu moom la ñun ak suñu njabootu ëllëg mhm. Aliou Sall ak yow lu tax ñu njëkk la woo rek laa wax quoi non non xam nga Sall da nga bàyyi ma tamit waaw mais xam nga comme ça on parle de choses sérieuses yu yaa ma ni lan moo tax ñoo ci mbir pétrole du mbiri pétrole on parle de nos ressources xam nga tey jii bu ñu duggee ci euh, fii fii nii fii ci studio bi mhm. sàcc ci ab télé mhm. nga di ci wax ñu ne non yoo xamante ne affaire télé déedéet on ne parle pas de la télé bi du astafurlah téléviseur en tant que mais on parle de l' de volet li ñuy ko wax mooy am na lu ñëpp bokk Macky Sall ca moom nangu woon na ni kat mbir yi am na lu tee xel mu santaane ab enquête balaa enquête bi di ñëw mu signé mbir mi joxe ko loolu jaaduwul on parle de ça mm-hmm. moo tax ma ne sànq la moo tax suñu xel tee ci doxalin bi mooy temps bi si suñu nar a jël te it sanjobu nanu seetlu ni fan yi dañu dégg ministre de la justice mu ne rapportu IG bi xam ne Sénégal yëpp d'accord nañ dafa am solo sept ans après l'avoir commandité Macky Sall jotagu ko te c'est ce même Macky Sall en tant que président moom moo jiital ministre de la justice mu sant procureur euh, bi fi nekk pour mu ubbi enquête ci mbir mi ñu ragal nag ki taxaw tey ni sept ans santaane naa ab liggéey sept ans après jotuma rapport bi ñu ragal ëllëg mën a it ba léegi jotaguma rapportu enquête bii Serigne Bassirou Guèye ji def man dégg nga ma am déedéet. dégg nañ ñu ragal nag moo tax moo tax Abdourahmane moo tax ñooñu Abdourahmane li ñuy def am solo muy lan. Hmm. maintenir la mobilisation. waaye également lawal ko ci réew mi yëpp département yi village amoo fépp àdduna fu nit nekk Sénégal ñor la war nga yëngu moom su ma ñëw Dakar waaye également dañu mënale combat au plan international. mais tey gis nañu sorti président mauritanien bi président sortant bi Mohamed Ould El Abdelaziz moom nee na lii yëpp c'est du n'importe quoi parce que mënul comprendre ni ñoom 10 euh, milliards yooyu dinañ ko jox euh, timis ak yooyu c'est donc c'est dû parce que euh, c'est dû au fait que Macky moom gagné na élection yi opposition bi bëgg yàq deram rek mais loolu yëpp moom du lu taxaw waaw kooku day man naqaru naa trop loolu mu def parce que dama ci am kersa sax d'abord parce que li ma mënta boobu contexte ma loolu ci la union européenne dafa benn rapport ci affaire u parrainage yi hmm. ministre yëpp ñoo génn taxaw ne yoonam nekku ci war cee wax parce que ingérence la tu vois parce que ça les arrange pas hmm. tey président Mauritanie nga xam ne yam ne suñu yëf bopp ñun hmm. amaana sax moo gën a dëng moom ñu bëgg a défendre <laughs> mu taxaw wax ci ne waa kon dëng sax li di wax. donc chaque jour sax mu fetal suñu nappkat problème ba noppi di coow ci mbir yi. mu ci waxee. Ah. ay katalam la yor di tiire nee na c'est wax yooyu moom te xam nga tax wax yooyu euh, képpel ko jàpp ni hmm. nga xam ne ñoom la ñu tuumaal boo ngeen ko seetloo bis bu nekk ñu wax tey lii huit heures huit heures cinq loolu dañ bi ci mujjee génn rek mooy li Aliou Sall waxoon ni kenn mënut a prouver ci àdduna bii nii hmm. benn xaalis bu jóge ci benn compte franc wala keneen dugg ci société boobu ñu Agitrans à hauteur de un ma un cent quarante sept millions mais ñu teg ci matul une semaine mais c'est le ministre El Hadj Seck euh, ministre El Hadj Kassé mais taxaw wax ni effectivement tension boobu am na. consultation agricole. mu ngi noonu. waaw comme ñoom daal la mesure où chaque fois ñu wax dara huit heures bu teel cinq mu tuxu dootuma jàpp seen benn wax. mais jaaxal. xam nga tey ji euh, affaire bi euh, marche bi xam nga bële paase dañ ko interdit. mu saf trop. nguur gi yëg ni affaire bi saf na kërëb kërëb. boo yi ñëwaat daal ne avec ou sans autorisation dañuy marsaat dinañ ñëwaat kii bii di ñëw mhm. ñu autoriser ko bii yoon est-ce que comprendre est-ce que nekkul ni dañu changer stratégie mhm. daal ne bon comme que ñii le fait yaa ngi leen di nasaxal mais ñi ngi gën a bëri doole mi ngi gën a saf est-ce que léegi duñu leen bàyyi ñu def marche nii buñ defaatee beneen yoon nit ñi taayal loolu est-ce que changé wuñ stratégie mais nit ñi duñu taayal la xam nga tax dama am tey mbégte lool ma ñëw ci marché bi dama dama faa gis ay ndaw gis fa ay maire gis fa ay paa parce que ndaw yi gëm nañ ni Barça wala Barsaax dëkk gi ñàkk koom-koom ba tax ñuy génn di songi géej yi wuñ teraanga lii ñu moom suñ ko aaree léegi Barça wala Barsaax jeex amaana sax ñu naan dakaar wala Barsaax feneen bu ñu fàtte ne dëkk yi ngay dem gis nga Libye Qatar yeneen dëkk yu mel ni ñoom seen pétrole parce que liggéey nañ ko ba mu jëriñ askan ba ba tey suñu ay doomi réew ñooy jóge dem foofu ci seen réew ñoom yàlla may nañu loo xam suñ ko liggéeyee tax ba mu gën ki la koy sàcc ñu teg ko ci yoon dana jariñ askanu Sénégal ëllëg ba dootuñu soxlaay keneen lañ ñeneen ko ñooni soxlaal ñun tey mairie daa jaay mairie mairie jaay daa jaay seen takkaay day dox seen i doom ñuy tukki c'est parce que am nañu conscience ci loolu tey nga gis gisee ca marché ba ay maire yu màgget ñëw ci marché parce que xam nañu mbir mi mbiru ñëpp la ndaw yu sam nañ ci conscience lu am solo loo xam ni euh, sénégalais dañ ko commencé comprendre mooy par exemple manifestation bi ñu war a autoriser maanaam xam nga dañ naan da ngay def demande d' autorisation parce dañoo tàmm loolu mais du demande d' autorisation déclaration la rek maanaam il faut sénégalais comprendre ni lii dafa sérieux mooy teraanga Sénégal ak loo xam ne avenir u Sénégal la ba keroog avenir tukki moom lañ yamale ci benn famille c'est-à-dire loolu dafa dafa loolu dafa am solo il faut sénégalais comprendre maintenant ñun bu fekkee ni par exemple génn dañ def demande d'autorisation jaar fi ñu war a jaar autorités yi comme sànq ni ma ko waxee ñoom ñooy jàngati constitution au Sénégal parce que constitution bu wax ñun ñu manifester léegi tey ñu autorisé ak ñu ñàkk autorisé sénégalais dañuy génn parce que sénégalais comprendre nañ léegi xamul am solo parce que sànq maa ngi gis nga yaa ngi laaj sama frère bi naan ko ndax manifestation yi dina am jeexital ndax dina am lu mu jariñ mais day am lu mu jariñ bu baax a baax baax a parce que actuellement ñun manifestation yi ñuy def li ñuy réclamé xaaruñu ko ci procureur mi nga xamante ni Aliou Ndiaye mooy patron Aliou Ndiaye moom Macky Sall mooy patron Macky Sall ak Aly Ngouille Ndiaye ak procureur ñoom ñëpp seen yoon nekkul ci askan wi kon justice amul Sénégal parce que justice bu amoon automatiquement rek moom du xaar sax dara di xew pour mu autosaisir yow xam nga Karim yow li ngay wax leer na yow xam nga seega man moo tax man waa ji man Moussa Sow man ay waxam moo lëndëm ci ma xam nga yow am nga benn but quoi am nga foo jëm c'est que ça ça dafa am lu am solo dafa am lu am solo loo xam ni Sénégalais yi il faut ñu comprendre mooy justice amul Sénégal léegi ñun bu ñu génnee nii di manifester tax ñuy manifester ni pour lan la. opinion internationale bi tey bu fekkoon dañoo toog rek yaru kon du ñu am manifestation bi tey kenn du ko autorisé parce que préfet ba 10 heures 11 heures mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi waxtaan ak gars yi ci bureau. cest la donc kon ñun dañu suñu devoir mais waroo xaar ñu la koy téyal c'est pas normal léegi nag. bu Sénégal bu Sénégal bu nekk. ma jaaxal mooy euh, tout au début da ngeen demandoon justice mu impliqué wu ci mu dugal ci loxoom tey justice impliqué wu na ci dugal na ci loxoom jàpp ngeen ne justice boobu tëddeewul njaxaan nag y a pas de justice mais tey comme li ma laaj euh, Abdourahmane au-delà même de la justice tey le président Macky Sall ngeen doon xaar pour mu prononcer wu ñu bëri ñu ngi doon réclamer euh, le départ de Aliou Sall de ses postes de responsabilité keroog Serigne Sallou bi mu fi toogee il a donné comme information que Macky Sall la décision même mu demi euh, jëlee ko ci post yooyu yëpp mais y a un ministre de la République qui si est opposé dem ñaan ko njëkk kon mu mel ni tey jii li ngeen di ñaan ci côté boobu bu fekkee ne amul leen euh, wolute ci justice bi beneen parti bi tamit ki war a jël mesure yi euh, fas yéene wu koo jël ndax boobu léegi mi ngi koy traîner kon yàgg mbir yi fan lay mujj bu fekkee ne BP dëkkam topp ñu ko wala mbir yi ñu mel fan lay mujj tubaab tubaab bokkul ak africain te yaa ngi gis documentaire bi waa BBC def ànd bi ci anglais bu naan ñoom mënuñu concevoir BP nekk multinational toll nekk dëkk bu mel ni Angleterre ak doole bi ñu am ñoom ñuy def corruption ci dëkk yu pauvre yu mel ni Afrique ñoom loolu daf leen ni métti xam nga tubaab bokkul ak africain dafa am loo xam ne il faut sénégalais yi comprendre ko c'est-à-dire instant yi cas bi dafa romb buri kër euh, euh, Bassirou lañ la ci parce que ñoom seen jëm bopp pour seetal seen der xeex corruption BP day am problème ñoom dañuy autosaisir sax duñu xaar léegi loolu nag mooy problème bi te ñëpp xam nañu ne gouvernance Macky Sall yëpp moom tubaab yi ñoo ko intéressé woon fi mu ne tubaab yi war nañ ko ginnaaw léegi fi ma bëggoon revenir pour sénégalais yi comprendre ko mooy manifestation yi c'est pas pour Macky Sall di taxaw di wax wala muy démissionné loo Aliou Sall man daa Abdou Karim Gueye damaa gëm ni damaa gëm ni deal bi sax Aliou Sall prête noo kese la ci damaa gëm ni man Macky Sall moom mooy ndeyu lépp man loolu dama ko gëm te ñun li ñuy réclamer c'est-à-dire manifestation yi pacifiquement amul tax ñuy insti à chaque fois pacifiquement sànq da nga laal kaaw marabu yi sëriñ si nga xam ne ndax ñoom dinañ mën a di intervenir di wax il faut ñu wan leen ne ñun jàmm rek la ñuy dox Sénégal réewum jàmm la waaye yoon may nañu ñun bu ñu amee lu ñu naqari ñu taxaw ñaxtu ko ni ñu koy ñaxtoo mooy léegi dafa jeex ñuy xaar man damaa gëm ni man ñi damaa doon Sëriñ Tuubaa ci xeexal dëgg man damaa gëm maa doon bàyyi ñes ci xeexal dëgg léegi du ñu xaar kàddu yooyu li ñuy xaar mooy conscientiser askan conscientiser askan bi ñu fekk ñu ci mbedd mi pacifiquement que ça soit autorisé ou pas bu jot ñu taxaw ba keroog opinion internationale bi xam ni saa su ne Sénégal mi ngi manifesté wu pour Macky Sall ci boppam démissionner ndax li mu def haute trahison la haute trahison la. ngeen yaakaar ni dina ko def surtout que moom loo wax mu ne la du ko def. waaw gàcce la xam nga gàcce la ci réew ñu am njiitu réew jox ko gardien de la constitution. chef eh, suprême des forces armées ndombal tànk ya dafa bare bari ba am nga loolu problème la. waaw mais Karim da comédie nag Macky Sall démissionné Macky Sall saa man lu ma gëmul du ma ko wax tax saa ñëw bu tey tey ku la waxoon ni la mbooloo mu toll dinañ taxaw ci mbedd bi di nga ko gëm ku la waxoon ba 10 heures ni dinañ autoriser manifestation bi di nga ko gëm donc ab na détermination rek ak ngëm-ngëm man man sept fois la demande d'utilisation. mais war ngeen ko mën a jox circonstance atténuante bu fekkee ne dafa wax ne yëguma woon. non mais loolu mais loolu est lu saaga askanu Sénégal yow ñu fal la nga nekk président yow moom mooy nit ku ñu gën a informé ci réew mi di ñaata renseignements généraux ñoo fi nekk yow nga créé ay OFNAC créé ay lu nekk nga créé ko xam nga pour dire rek loo xam naa ko fi wax tey mu bett ñu bari na fi ngoom Keita li wax nii nag waxu néegu biir hmm. di leer hmm. loo xam ci suuf la ko wax ko ci kaw mais su sur la alors mu ne Macky Sall daf ko woo mu ñëw mu ne ko chaque jour ñu ne ma Nafi Ngom Keïta Nafi Ngom Keïta di la boole rek bëggatuma kenn ñëw fi tudd sa tur Sénégal mënoo koo defar mënu moo koo defar dama na ah de maintenant ah. problème suñu problème ça suñu problème xam lan mooy ñu xam ni on n'a pas de leader on a des problèmes de leader problème Sénégal du problème pétrole bi kese or ba zircon ba ba sari tur bi Sénégal am na lu nekk mais amul benn yoon xoolal ooru Sénégal bi Sabodala ni ñu koy def te dafa yàgg léegi nag loolu naka lañ koy xeexee mooy jamono bii àdduna bi yëpp ñu ngi braqué seen i bët Sénégal léegi damay wax ma ni fulla fayda jom ak ngor xam loolu mooy lan mooy dignité bi nga xam moo lay may yow nga mën a taxaw jël say droit ba tey ñun jalgati yoon te duñ ko jalgati tey man euh, beneen problème rama moo mhm. di euh, tout au début kuréel yi euh, yu taxawoon pour aar ak fi am na Euh, benn campagne boo xamante ne taxawal ngeen ko yaakaar ngeen ne politiciens yi euh, waratuñu bokk ci seen ay kii parce que ñoom ñëpp takk mais tey jii itam ci seen ay combat dañuy gis euh, politiciens yi dañuy ñëw di ci greffé wu tey jii ñooñu tey ban naka la ñuy mën a layale seen mouvement boobu xam le ne mbirum askan bi rek moom leen tax a jóg parce que ñëpp jàpp nañ ne ces politiciens là ne sont mus que par leurs propres intérêts. xeex daa fu muy toll. man man du ma xàmmee xam nga olof day ne dañuy wax ñu ne sàmmkat bi day sàmm gétt gi pour musal ko ci bu mucc ci bukki yi léegi sàmmkat bi moom mooy bukki bi léegi gétt gi leen ñuy dimbali pour ñu mucc ci sàmmkat bi nekk bukki bi mooy gétt gi ñu wëlbatiku ñoom ñoom nekk wenoo say di ba mu bàyyi leen <laughs> foofu lañ toll léegi bukki bee sàmm waaw léegi toll ñu nag taxoon di manifester man se fu mu taxoon di manifester man xamee a mooy Sonko man dama gis benn askan wu jug mm. ay doomu Sénégal yu jug di ñaxtu pour récupérer seen li ñu moomal seen bopp man loolu laa gis tey mm. te loolu dama jàpp war nañ góorgóorlu ba éviter ñu yàqal ñu ko ci di ñu diviser naan kii mooy diw kee mooy kee kee mooy kee ndax ñun li ñuy jooy ñun ñëpp intérêt Sénégal loolu am na ah, am na léegi ci manifestation yi li ngay wax noonu lu am la ci manifestation yi ci nguur bu ñëw vous menez les mêmes combats est-ce que tey jotul ngeen ut beneen alternative parce que c'est les mêmes combats Abdoulaye Wade lii ngeen ko combattre euh, Macky Sall ñëw vous combattez les mêmes euh, chose les mêmes revendications qui reviennent est-ce que c'est euh, où se situe le problème man c'est ma grande question et chaque fois vous portez le combat après vous vous retirez même problème yi ñëwaat on vous revoit sur le terrain avec ces hommes là que vous combattiez avant. c'est-à-dire moom wax sànq xam nga euh, ak Abdoulaye Wade c'est-à-dire Macky Sall dafa ñu dafa tas yaakaar awa noté ko tey Macky Sall moom président moom mënutul melaat ni moom non fi mu yegg nii ma xam nga da nga dem ba sës këj fa la yem nit mënul defaat li Macky Sall def ba ngi ñor. ak arrivé yeneen politique yoo xam ne xam ne nit ñi idéologie bi ñuy prôné ak li ñu gëm tey ku mel ni Sonko par exemple la moo tax ñu daax ko fi mu nekkoon affaire pétrole bi la pétrole tamit moo tax ñu daax ko c'est-à-dire yooyu yëpp xam nga ñu jël ay risque parce que gis ñu foon benn politicien bu jël ay risque maintenant léegi li wér ba wóor moom mooy ñun moom li ñu wax rek na maanaam xeex bi moom du jeex tey même su fekkee ni sax changé nañ même président bu ñu jàpp ni kii normal la le pouvoir rend donc président dañ koy gunge ba pare njiit de dafa am opposition dafa war a am kon pouvoir dafa baax ci réew moo taxoon may di ñaanal baax lim si àlla encore ndax gis nañ ko fi Abdoulaye Wade jóge a ñëwaat que ce ne sera ma gëm loolu xam nga man du man du wax ni sama combat c'est perdu d'avance man loolu du ko gëm parce que tey lañ doon xeex ci Abdoulaye Wade boo seetee def nañ ay jéego yu am solo Macky Sall mu ñëw koy delloo ginnaaw démocratie Sénégal ba mu gën a dellu ginnaaw yóbbu fi Abdoulaye di yemoon sax moom mu jalgati ko gën koo yàq mais peuple bi conscient nañ si loolu léegi politique yi mais attends xoolal bu baax élection présidentielle yi nan la demee c'est que loolu la ñuy xool kan moo nekkoon kan moo ji kan moo fi bees kan moo fi indi pour cent c'est-à-dire maturité bi ngay wax ci peuple bi ils l'ont élu à 58 pour cent ma sœur Macky Sall élu à pour cent loolu ay wax kese la Macky Sall dafa privé sénégal yi seen droit de vote ngay nga fichier électoral da ngay dem di voté fi nga doon voté depuis 10 ans nga dem ñu ne sa tour nekk fi nga gis ay xale yu ndaw yu doon voté yoo xam ni amaguñ sax 17 ans 12 ans Macky Sall moom moo la gën a xam élection yi da ko sàcc loolu ñëpp xam nañ ko. léegi nag mais Karim loolu gars loolu fake news la parce que. fake news waaye noonu waaye Karim danga may déglu nag. bu fekkente ni Karim bu fekkente ni booy yu ndaw yooyu ngay gis ñuy voté. foo dem kañ ba yoon mu daadee fees lu ci soxla ñuy jël yu ndaw yooyu ñuy voté. et loolu sax dañ doon wax ni gouvernement scolaire ci yenn école yi loolu la demee woon waaw loolu gis nga loolu Karim euh, gis nga loolu. non Karim foofu te sa sa information yi baaxul. non non c'est-à-dire cest il faut ñu ça il faut ñu. non quand même tamit loolu mënta nekk. ma ne man day damaa gëm ni Macky Sall du président légitime. vu daf ñu loolu d'accord non mais attends da ma ko euh, ñu ko comme président bu légitime mais pourtant bu mu leen woowee pour ñu ñëw waxtaan ñi am na ñoo xam ne dem lañu wuy ji est-ce que loolu ñooñu contredire uñu seen bopp tamit sari non xam nga gis ah. nga moom politique yi moom yàgg nañ teg gàcce yàgg nañ teg gàcce quoi vu pur le gis nañ ko mu dem ci ci kii bi même Idriss Seck tamit yow na yabal rek yabal nag mooy dem naa c'est-à-dire ça non mooy dem naa on a compris mais ñun askanu Sénégal il faut sax bi xeex xam nga xeex bi xam nga ñun lu gën a sonal africain ma mooy saxal mbaa ba sulli ñun suñu peuple day nelaw wax naa la ko sànq ma ne la xeex bi ñett ñett la mooy lan ngay xeex nan nga koy xeexee ak kan ngay xeexal xeex bi d'abord da ngay xeex d'abord ak ñi nga xamante ni ñoom dañu war a comprendre comprendre lan mooy état de droit pour taxaw ci charte yi nga xam moom la ñu war a taxaw pour défendre loolu loolu nag nga koy xeexee nag mooy tey manifestation yi tey bu ñu tegee ñeenti ñeenti àjjuma bu ñu bañee ñu tegaat ko ci rek préfet bu bañee ñu ne ko par dañ koy def bu ñu ko defee weer. di ngeen mais ñoom dañoo jàpp ni ak coupe d' afrique bi bu Sénégal gagné bi daa dee naax saa yooyu xewi na saa yooyu xewi na peuple ma gis man dañu déterminé wu pare ah. jeunes yi ngay gis ñu bind seen t-shirt ne suñu pétrole mooy suñu coupe d' afrique ñooñu yi loolu lañ bind gën a jar ci mayo mayo euh, Sadio Mané a ah. jox ñu suñuy quatre cent mille boobu moo gën a jar Sadio Mané jox ñu suñuy quatre cent mille c'est-à-dire le compris donc li des mooy c'est-à-dire média bi jàppale ñu rek ñëpp taxaw ñu boole ci fulla fayda jom ak ngor kon ni ma koy waxee ñu taxaw ci Macky Sall ñu xamal ko ni ko askan wi wan nañ la ginnaaw lii teg leen ko mu leer opinion internationale bi daal di ci dugg parce que procureur man yaakaaruma ko man yaakaaruma procureur Aliou Ndiaye mooy patron am Aliou Ndiaye ñu ngi koy taxal ci soos bi naan laal nañ ci am laalu ci. Aliou Ndiaye du patron la anyway ñoom ñëpp ñoom ñu neen la patron ñoom ñëpp naa ne ministre de la justice ci wuñu cest à gouvernement bi la rek loolu laa bëgg wax ko en fait c'est gouvernement cest ñoom réeroo wuñu donc Macky ci boppam moom mooy patron li yëpp te li mu bëggoon mooy waññaar suñu loxo te loolu duñ ko nangu. mais est-ce que yaakaaru leen Abdourahmane que le débat a été faussé depuis le début bi ñuy laajte ci ñu leeral leen leen ci pétrole bi boobu les autorités se sont barricadées ne duñ ci wax duñ ci àddu. ñi ci war a euh, ñu ci xam dara ñoom ñoo ciy wax est-ce que du problème bi foofu la euh, faussé woon depuis le début moom moo indi tey euh, moom mooy suite logique wu lii yëpp tey ji ne au début suñ ko leeraloon. waaw suñu leeraloon waaw may ma bii waaw léegi yow bàyyi ko mu terminé non léegi Sa Ndiogou may ko mu terminé ak question boobu Abdourahmane avant ñu ñëw ci oustaz sax dinañ ñëw tamit euh, ma joxe indice bi ba pare après ji indice bi ca commencement bi war nga ñu ko doon jox waaw est-ce que du boobu la ñu faussé woon bi parce que ñu bëri comme ni mu ko waxee Baba Aïdara waxoon na ci Ousmane Sonko wax na ci keneen ak keneen ñoo ñëpp wax nañu ci pétrole bi liñ doon laajte au début signalé wuñu woon sax ay cas de corruption ou autre mais dañu bëggoon ñu wax leen lu leer wax leen contrat yi les tenants et les aboutissants est-ce que ci boobu euh, su président bi barricadé wul woon bañ tontu ci mbir mi naan ñi ci xam dara ñoo ciy wax est-ce que bu euh, problème bi yëpp tey dina am. loolu moom la réponse évidemment c'est oui c'est oui parce que le président de la République comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est le président de tous les Sénégalais mu war a garantir le bon fonctionnement de nos institutions warul toll foo xam ne dafay xàmmee rakk wala doom loolu mooy président de la République wax naa ci njëlbeen nag ñun dans le cadre du collectif citoyen pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaz yi nga xam ne Abdoul Mbaye Ousmane Sonko Malick euh, Gakou COS M23 Cajus ñoom Alioune Gueye à l'étranger diaspora porté nañ plainte au niveau de l'Australie ci ay institutions yu fa ne yoo xam ne loolooy seen liggéey porte nañ plainte au niveau euh, de Londres ci ay institutions yoo xam ne loolooy seen liggéey porté nañ plainte au niveau des États-Unis même de d'État américain saisir nañ ko so kooku c'était en 2016 nous sommes en 2019 trois ans le procureur de la République bu Sénégal déposé nañ plainte ci bureau Abdoul Mbaye bind na ko plainte bu explicite Ousmane Sonko interpellé na ko société civile interpellé na ko donc bu ñu demee ba tey jii ñu am problème boobu mais lu ji njaaj ñoom ñooy njaaj parce que dañ ko doon dañu pour man dañu naagu dañu naagu wala dañu foogoon ne rek na mu daan demee nay game alors que nag yàlla suñ borom tamit mi ngi fi dafa am sa partition boo xam ne boobu rek ay bu sax bi boobuy dëgg dañ lay jëy bàyyi la ngay def ba tey ji je me rappelle maa ngi def naa fi benn publication boo xam ne dama doon waatal Aliou Sall c'était en 2016 6 septembre AZ Actu may wax ne procureur dafa war a def autosaisine woo Aliou Sall parce que bu ko lijjantiwul jour buñ koy lijjanti billaahi dina métti si septembre ba tey ñaata la boo duggee léegi di nga ko gis pour vous dire que ñëpp artu woon nañ ñoom ñuy def li leen neex naagu maintenant dafa am loo xam ne dama ko wax lu am solo man je parle fondamentalement par principe au nom de la COS M23 bu weesoo loolu aar li ñu bokk laa wax nous nous parlons en sénégalais mais y une manière aussi de les parler il faut rassure les Sénégalais ci démarche objective mënul ñu jàpp oustaz tëj jiñ ko atteeguñu ko tëj ngay tëj yow mënoo ko natt ci baabakay mbay ngaraaf ne mënoo jàpp ngaraaf tëj waaw ak ni mu jubee raaba <laughs> man kay bul ma ko ñëw natt man ci man mukk mu naan mënoo jàpp oustaz tëj fi la bët mu neel mënoo jàpp ngaraaf tëj <laughs> yeggale baa ñu bañ a tëj kenn waxee na daal oustaz ah. dama bëgg wax ne que ñun hmm. wax naa ko sànq da ngeen ma déglu Sadio lañ daan doxale dootuñu ko doxale gis nga acteur politique Sénégal du ma ci xas kenn boo leen gisee coow bu ndaw bi aar ah, ñun ñu bokk am des fois suñuy waxtaan ci biir dafay jafe c'est un collectif citoyen bañuñu kenn bokk ci quelque soit ton statut mais bu ma nee kenn génn ci mais bu ma nee déglu ko nag bu ma nee du ñu hmm. exiger euh, départu kenn bu ma nee du ñu exiger démission wu kenn hmm. par principe dañ bëgg defaraat Sénégal mu tegwaat ci ay fondamentaux parce que démb defoon nañ ko fi nit biaisé ay droit am violé ko ñu ñëw ne justice bi dañ ko manipuler alors si aujourd'hui on demande la même chose contre Aliou Sall ça va nous rattraper ku intelligent doo ko def xamuñu lu ñuy def dañ ne procureur malgré xam nañ ne tu nous donnes l'impression que ne dañu lay tënk parce que yaa fi génne dañu lay jox ay instruction soit ñun benn pexe la ñu am mënuñu jéem ne dañuy génne Macky sàll ba pare ku ko fi def tey suba dinañ la génnee te réew du doxee noonu mënuñu ñëw ne ko par force da ngay démissionné ça dañuy waxañ dëgg da danga may déglu danga may déglu non da nga may déglu dama ne sama xeex xel laa koy xeexee mhm. man du ma nangu. xel kañ mën ngaa tëdd sa nekk may déglu saa déglu ma de ma la wax dama la wax am solo kaf waxtaan bi am na kaf mais coow lii dafa am importance. Mhm. parce que tamit dafa am ñëpp ñoo xam ne ñu mu ku mu mën ci doon dafa am agenda te ñun duñu servir à faire prévaloir l' agenda de qui que ce soit au risque de violer les principes. Mhm. jàpp nañ ni que restreindre nañ suñuy droit violer nañ suñuy droit mais li ñu mën a constater que mooy le président de la république a été réélu n'est-ce pas. élection la jaar kenn mënu ci dara. Mhm. na ko fi élection jëlee ba ñuy gis leneen. élection la jàll. waaw problème yi bu fi amee Aliou Sall dañ koo jiiñ ñun ñëpp mën nañ jàpp fanaanee sax ne mën na am xam nga lu ñuy wax présomption d'innocence mais nous sommes presque convaincus que ni lañ leen di jiiñ ñoo ko def mais boo bàyyee yoon jaaral jaarale ko neneen mhm. ëllëg nit dina ñëw nga bëgg fi wut ay lay parce que gis nañ fi ay acteurs de premier ordre au moment de prendre le pouvoir ils ont changé de discours ils ont changé de posture au gré des intérêts ou bien en tout cas du contexte et ces mêmes acteurs se retrouvent aujourd'hui avec nous mm-hmm. moo tax nag bu ma nee dañuy bañ ku ñu manipuler bañ ku la ger mm-hmm. moo gën a yomb bañ ku la manipuler parce que nit dina ñëw di la raay sax di la jox parfum ndekete mi ngi lay manipuler mm-hmm. Sénégal bii da ngay may déglu tuuti Sénégal bii Sénégal ñu bëri la dama ni nous on a presque vingt ans de notre vie aux côtés du peuple le combat toog nañ ak kilifa gu ne dem nañ ba ñenn ñi si des fois kilifa yi da nga leen di xeeb parce que da xam ne yaa leen ëpp pas-pas wala yaa leen gën a ragal yàlla gis nga problème yu mel nii réew mi di def néegi yooyu boo ci bëggee génn da nga ciy jiital xaala laaxu boobu nga xam ne fondamentalement yàlla dafa naan lii mooy taxawaay bi. mais xaala laaxu boobu nag ma ñu bëri gëmatul di di parparlo di eh, di di kii di di di jaxase. dafay këpp sa kaw. Eh, Karim Karim Karim Karim dañuy dem ci oustaz. attends attends dañuy dem ci oustaz après ñu ñëw non non xaaral Karim Karim Karim Karim dimbali ñu xuus bi li mu wax nii xam nga ça ka am wax benn affaire affaire wasin la am dem tool lii mu wax nii man dafa am parti boo xam ànduma si ça parce que non non non attends ça mënuñu non c'est xam nga peut am na fu ñu nekkee en face mais am na foo xam nekkuñu en face mënoo génnee Macky Sall ci luubal bii Aliou Sall non ma ñëw ma xaar ma ñëw même ma ñëw rek non presque dafa tax mais dañ waxante dëgg waay non génneewu ma ma ñëw rek génneewu ma la dégg ma même ma ñëw rek dafa leer procureur dafa taxaw jël position loolu ñëpp dégg nañ ko du ñu ay dof quoi ministère bi taxaw jël position nañu waxante dëgg quoi Macky Sall taxaw jël position nga am ay presque ñoo def def waaw ma ñëw même ma ñëw man de non c'est que yéen ñaar yéen a bokkul lu ngeen di xeexee quoi loolu mooy problème bi yow sa xeex dafa xaw a lewet kii dafa. ma daanaka ma daanaka combat quoi ma daanaka ma daanaka yeggaleel par respect ma daanaka rek ma ne maanaam man de mag gi ma àndal li ñuy réclamé lu tax mënuñu réclamé démission Macky Sall la mooy haute trahison mais suñu njiit yi ñoom ñooy jalgati chaque jour <coughs> tey dama ne ñu teg ko si yoon ana yoon bi yoon bu defatul yoon peuple bi moo yor yoon te peuple bi ni mu yore yoon mooy ñu réclamer seen i droit. mais Karim bu Macky Sall bu démissionné wu lu ñuy def bu démissionné wu damay laaj. Moustapha Cissé Lo mooy ñëw de bu démissionné. non c'est-à-dire xoolal non xam nga lan moo am solo. kon xam nga fu ñu koy waxee Moustapha Cissé Lo mooy ñëw trahison la def. waaw oui Sénégal yëpp Moustapha Cissé Lo mooy ñëw kii dafa dépassé. ba yëf yëpp leer te xam nañu leer bi ñuy xaar ñu ngi koy def Macky kañ na continuer ba ba ci kanam bu mu démissionné ma yeggal juste rek man ma daal non c'est que li nga wax dafa garaaw boo nee nag Karim Macky Sall démissionné bu démissionné Moustapha Cissé Lo mooy ñëw bu ñu koy waxee ji saa su ma daangalee ah, rek Moussa sois sérieux nag s'il ma àndal li ñu réclamé mooy xam nañu Macky Sall loxoom setul ay preuve yu yoo xam ne bien avant Macky Sall di nekk président moom mu ànd ak Franck Timis Macky Sall le 12 juin la wala trois mois après la signé euh, benn xam ñaari bloc yëpp la jox euh, frère am ak Franck Timis donc dil boobu Macky Sall mënu ci set léegi yow nag ñu mën a taxawee naan naan li ma wax sànq naan sàmmkat bi moom bukki la nga naan da nga koy muccal sàmm gi ci bukki bi donc moom Macky Sall mooy le principal responsable il faut ñu il faut ñu bàyyi discours bi fi ñu koy ragal kenn du ko raayu raay yoon moo amatul Sénégal askan wi war a jug def yoon. ak lien de parenté bi parce que comme la ñuy wax ci wàllu république xamuñu kii sama doom la kii sama frère la wala kii sama sœur la peut-être ci côté boobu mën nañu jàpp ne euh, côté boobu péché na fa. peut-être mun na euh, tey sa frère mun nga ko jox euh, entièrement confiance mais mu induire la en erreur sans pour autant yow sa bopp nga xam ne lim la dugal nii du woon yoon. Euh, xam nga dañuy wax ni Sénégal du royaume république la ñu mënuñu Macky Sall mënuñu ko baal juum bu muy juum ci ay frère ak i mbokk ay Timbo ay Marème Faye Sall loolu duñ ko baal xam nga lu tax parce que dañu gis kaw Karim Wade fi gis nañ ay Sindiély Wade mais ñun yow Macky Sall fi mu déparé la mënuñu ko baal loolu duñ ko ko baal. léegi nag moom mënul ñëw di def lu gën a yées li Abdoulaye doon def ba pare ñu ne fi naan non dañ koy xaar dañ koy Macky Sall ku koy xaar gàcce la lay teg te teg na ko ñëpp ah APR sax gis nga ne mi ngi tas parce que dafa leen teg gàcce une manifestation boo xam chaque ajjuma ñu nag Macky Sall tànk tànk mbagg ak mbagg autorisé ou non autorisé d'accord ah. merci Karim jaajëfal euh, Awa Diop Ndiaye Diagne ak euh, Oustaz Assane Sandiogou l'élément perturbateur mi ngoog